doomu aadama ni ko yàlla bindee dafay mooy la war ci jullit bu tàbbee ci njuumte mu daldi gaawantu tuub jéggalu yàlla dafay kontaan ci tuubub jàmbi dikk ci xadiis ni yàlla moo gën a mën kontaan ci tuubub jàmbi ka jaam bay wommat gileemam gannaaw bu mu ko réeree ñàkk ko ci àll dafa war ci jullit mu moytandiku bàkkaar yi wéet borom bi subxanahu wa na kay nëbbatu di ko moy di nëbbatu nit ñi te du ko nëbbatu moom yàlla wax na mu ne ñu ngi nëbbatu nit ñi waaye nëbbatu ñu yàlla te yàlla mu ngi leen di gis di leen di xam jamono bi ñuy nas ay kàddu yi nga xamante ne moom yàlla gërëmu ko waaye yàlla de ku peeg la lépp lañuy ñuy def yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi moytandikuloo bàkkaarub wéet mu ne ndax duma leen xamal ay nit yu bokk sama xeet yay dëkk yowmal qiyaam ci ay bakkaar yu bare comme montagne yàlla daal di koy def mu nekk poussière sawbaan mu ne yow yonent yàlla bi melale la ñooñu ngir ñu bañ a bokk ci ñoom yonent yàlla mu ne ñooñu seeni mbokk lañu li ñuy jël ci guddi li ngeen di jël ci guddi waaye bu ñu weetee duñuy xotti ormu yàlla ci mooy yàlla lay muccal doomu aadama ci bàkkaar bu weete ay mbir yu bari la bokk na dellu bu muy dellu ci yàlla ci ñaan ak toroxalul ko yàlla daldi koy sotal mooy yàlla yooyu jaayante bu muy jaayante bakkenam ak puus lépp loo xamante ne jax-jaxal la mu góor-góorlu kem kàttanam ci sellal bakkenam ci topp yàlla mooy tandi ku wéet kem kàttanam waaye tamit mu daldi jaxasoo ak nit ñu baax ñi mu daldi tamit yëg ni yàlla ku koy fuglu la di ko gis di xam ay mbiram mu daldi teewal tamit jëmm ju wekk jëmm jamono bi muy mooy yàlla loolu daldi koy yóbbee mu daldi rus yalla lu ëpp lu muy rus jëmm ju mu wekk buy jàkkaarloog moom jamono bu muy mooy yàlla dikk na ci xadis yoon ci bi mu ne na nga rus yàlla lu raw na nga rusee jëmm ji nga wekk bu taxaw sa kanam na nga fàttaliku dee ndax dee bu la dikkalee jamono bi ngay mooy yàlla naka ngay jàkkaarloo ak sa borom ci melokaan boobu da nga fàttaliku la yàlla dig yi nga xamante ne ñoom ñu ak la yàlla dig ñi nga xamante ne ñoom duñ koy moy ak baax ak moo yéeme kii wax ni bu nekkee danga wéet ab bés bul wax mukk ni wéet na waaye kay waxal ni am na ku may fuglu am na ku may gis bul njott mukk ni yàlla aji sàgganee la waxtu boobu wala lu fàddu la ci moom wala bokk yegu ko